mën a def li ma indi fii tey mooy joxe sama xalaat. Mm-hmm. mooy sama position ci mbir mi. donc kon tey Imam Dramé jaar na fi keneen jaar na fi man dem naa ci yeneen seen mm-hmm. def nañ conférence de presse. ñu ngi def li ñu war a def lan ngeen bëggoon. ay sëriñ yor ay xeer di sànni. ay sëriñ dañu am ay. leader non ay ñun ay leader d'opinion lañu. ay leader d'opinion lañu. sëriñ Muntaxa li mu def mënoo ko tuddee lu dul jëfu sëriñ sëriñ Muntaxa mooy mooy mooy sëriñu sëriñ suñu sëriñ ñun mooy suñu sëriñ kon jëfam dañ ñun dañuy jàpp ni dafa rejoindre lañ doon wax ñun depuis booba ñu ngi wax bàyyil grève de la faim ñu ngi koy wax wax naa la ni wax naa la ni ñun nekkuñu fii pour ni lii baax na te baaxut wala lii non non nekkuñu fi noonu ñun politique biñ ciy dugg dañoo gis ni dafa salte mhm. dafa ñàkk moral dëgg dafa nekkul par parloo dafa bari loolu c'est pas par rapport ak diw wala par rapport ak diw mais c'est le système politique sénégalais qui comme ça ñun ñu ni ay sëriñ lañu mosuñu cee bokk mosuñu cee bokk ça ne veut dire que amul woon sëñ Cheikh Tidiane si bu nekkoon par yomoon parti politique wala sëñ Cheikh Gaynde Fatma bu doon jàppale Cheikh Anta Diop wala sëriñ Mamoun Niass bu yoroon parti ñoo ñu amoon nañu ay parti mais système bi li ko doon defar man ci jeexital indi ci valeur l'islam fi mu toll xol yu wow yi ne ci Sénégalais yi bët bi ñuy xool usmaan Sonko nga nit mën ko xool di ko ñaw nit mën ko xool di ci kontaan bët boobu ak xol boobu loolu ci boppam moo bokkul woon ci politique man duma ko yéene kenn ci àddina bu doon Karim Wade ba mu fi nekkee yéenewu ma ko dama doon wax di ko naqarlu même bu fekkee nekkuma woon ci partem bu dee xalifa Sall noonu cest à dañuy jaawale ñaar mm-hmm. imam bu taxaw di wax ni lii warul nekke nii loolu mu metti ak mu naqari mu far ak yow ak farut yow dangaa war a xam ni nun sunu kàddu la euh, yàlla sunu borom daf ni gat sa bu leen ko wax mm-hmm. waaye bu ñu la toolee tooñee wax ko dégg naa Zator di wax ay aaya alquran laa yuhibbu llahu aljahra bissuui min alqawli illa man zulim laa yuhibbu llahu aljahra man su may wax alxuraan nag dama naan ku may tontu nag ma ci tontu yàlla bëggul ku yëkkati kàddoom ci saaga wax ju tàng illa man zulim lu dul ki ñu tooñ bu ñu la tooñee nga yëkkati sa kàddu kàddu gu mel ni dafa ñagas ci bëtu ñi nit ñi kay ñëw di ko ñaawlu la mu waroon a njëkk xool mooy tooñ gi ñu la tooñ ba nga def loolu Ousmane Sonko dañ koo tooñ xam nga bu ma nee dañ koo tooñ. oui imam. may ma tuuti foofu. bu ma ni mukk da ngaa bëgg dal ci kaw justice mi àtte critiquer ko déedéet. ba tey jii joxuñu ñu explication cinquante cinq jours yu ñu barricade këru nit yu ñu convaincre ñun sénégalais yi ba tey jii joxuñu ñu explication ku dugg ci otoom di dem nga toj verre bi fuqati ko ci oto bi génne ko ba tey joxuñu ñu explication kuy dem nga jël dara. xëpp ko ko dama ni loolu ñu ko xëpp bu doon ndox sax sañuñu ko ndox ndox mii ci robinet bi nga jël ko def ko nii zatol sañu ma ko awma ci droit awma ci droit ndox mi baax na baaxul sobe la du sobe am na liquide bi day gaañ ni awma ci droit d'accord léegi léegi yooyu yëpp boo ko jëlee du benn affaire yu bari la yooyu yëpp boo ko jëlee dajale ko kenn mënul tee Sénégalais yëg ni Ousmane Sonko dañ koo tooñ alors kenn mënul tee Sénégalais yëg